asalaamaaleykum wa rahmatullah asalaamaaleykum wa rahmatullah mardi 28 avril 2020 ñëw ak yéen ci yëglikaay yi yëglikaay yi nag tey sunu lamb fa la ñuy xëy doore ko kaay ba nag tey dafa xëy ñëw ci ñoo xam ne nii day ay mbër yu mag a mag a mag lañu ci lamb ji ku ci nekk maanaam sa empreinte yow marke nga ko ci mbir mi moo xam yax yi jub yi ki ni la Serigne Dia Bombardier Gris doo ba ci booy kayre waaye ñoom nag fi mu nii daal daa mel ni ñoom ñooñu ñu limu day ku ci nekk daal jàppal maanaam daal Alioune Sarr moom fauteuil ba mu toog fa nga ko bëgg a jëlee wala ku ca rek wax nga waaye moom daa mel mu ngay gën a toog waaye la am daba daal mooy bu dee Yékini la moom la mu gis mooy nee na lamb ci boppam moo soxla ay kanam yu bees xar kanam yu bees tekk tekk la sax la jàpp ne moom la ñu war a daj waat paquet bi teg ko ngir mbir yi gën a avancé jëm ca kanam ndax daa jàpp ni ñii li ñu mënoon def nañ ko fa ñu mën a yem yegg si nañu fa bombardier itam daa mel ni soriwut loolu moom état ba ci boppam la samp lab laaj wala boog ñoom lay waxal nee na leen fi mu nekk ni daal CNG bi la ñu war a jël jox ko yeneen nit yoo xam ne ni daal yu koy yóbbu feneen la maanaam yore làmb ji état ba nag la Bombardier interpellé Gris Bordeaux moom itam wax na de moom itam dafa wax nee na li ambres daal mbirum CNG bi ci boppam tas ko la ñu war a def maanaam daal tas ko wala boog ñu xool nu ñuy def dem ngir ñëw di leneen loo xam ne lu bees la mel ni ki ba tey wax jooja ak la Boy Kayre wax itam benn la moom itam jàpp na ne daal ñoom fi mu nekk nii moom seeni mbir maanaam seen ab limite dañ caayam foo ñu mënoon a yem daal yem nañu fa maanaam bu doon yéeg la booy daa jàpp na yéeg nañ ba ca njombaxtal la maanaam ca catti garab ya kon kay des mooy ñu wuti ñeneen balaa ñuy daanu leneen di am loolu mooy wax nga xam ne nii moo di booy kayre mel ni ki nag cooloo la fi mu nekk nii daal saa ñu xëyee muy gën a metti am na koo xam ne ab promoteur la moom itam ñu ko jamayke xëy na moom itam fëgg ba mu saf yuuxu ba ñëpp dégg ko jam daal la mu xam ne daal nee na li leer ba leer daal ñii di waa CNG bi daal la jàpp ne ni ñuy doxale moom la ñaawlu moom jamayke moo xëy di ko wax dana tamit waa làmb ji waruñoo nangooti li nga xam ne mooy ministre sport di leen tànnal koo xam ne mooy jiite làmb ji ne na déeréet loolu du am xel te itam jàpp na ne du lu war a man a ne li mu gis daal mooy li am ba des mooy ku bëgg a jiite làmb ji da ngay def campagne andi sa programme yaa xam foo mën a jóge bu ko defee bu méngoog liy doxal làmb ñu jël la fal la jox la nga doxal donte amuñu fédération moom jamaykee lool la wax waaye daal nee na ak lu mën a xew moom waa làmb ci boppam war nañoo xalaat seen taxawaay moo xam promoteur ba la moo xa mbër ma moo xam amateur ba ko mu ca mën a doon ñu jël mbiri aame doxalal ko seen bopp loolu mooy waxe nga xam ne nii moo di jamayke moom jamayke moom booba tey mu ngay wax de danañ li am des itam xaalis bi nga xam ne nii moom mooy jóge ci mbirum làmb ji maanaam yu mel noonu waras naa xam fan lay jëm loolu mooy waxe xam ne nii moo di jamayke ak itam nañ koy gérer maanaam daal ñu bañ ko teg ci loxob kenn muy def la ko ca neex ci li ñuy dagg ak yu mel ni ki noonu ak yeneen xaalis yi ya nga xam ne nii moom la ñuy fay te mu dis lool ci promoteur yi dana promoteur day lu yëpp stade mu seer fay sécurité fay suuf lu nekk mu dugg ca mbir ya mettee metti ba nga xam ne ni fa yegg maanaam daal yegg ci metti lool la def nee na Iba Mar nga xam ne nag jëlee nañ leen fa gën a ñëw gën koo mettil te jàpp na ne am na ñoo xam ne seen doole wala boog seeni i combat mayu leen ñuy dem arène nationale di fa tëgg te daa jàpp ne arène ba itam fa mu nekk maanaam roqee na ba pare tey la ca des mooy nekkul arène boo xam ne nii méngoo ak ñun suñuy réalité dëkk loolu ba tey waxi jamay kee la de ci yëglikaay bi nga xam ne ni moo di sunu làmb ba tey itam mu ngay wax ak waa CNG nee na leen daal 300 millions yi nga xam ne ni dañoo wax ne lañu nii noonu dajale nañ ko jàpp na ñoom la nga xam ne nii mooy 14 millions a génne na ne kon 286 millions yi des jamay na ba yegg ci lool mu mel ni kat daal fi mu nekk nii moom boo bëggee dégg-dëgg coowal seen see bi daal tar na wax la la naqari ak la nga xam ne ni moom nga gis ne doxul te ñu war a fexe mu dox ñoo xam ne nii moom ñeenti mbër lañu seq benn combat moo xam Garga Mbossé la Sa Thiès rëg-rëg Yékini Junior nee na ñeenti mbër yoo xam ne tey benn combat fi mu nekk nii moo leen dajale moom la ñu seq mu mel ni ki daal kon ñoom ñooña ñu nga taxaw yëglekaay ba wane leen xam ne nii moom maanaam làmb ji nekkoon na ca ne ci yoon wu baax a baax muy lagros bu nekkoon écurie Fass wala boog bi nekk écurie Fass tey ñu xëy a xëy gis ay mbiram doxatul la ko andi woon ne nañ ay mbirum blessure la moom nag waxal na boppam ci xel mag Boubacar Niang lagros daal nee na fi mu nekk nii la ko rëccoon lépp lépp la bëgg a jàppaat ko teg ci a avancé demu yoonam moom xale bu Grand Dakar ba nekk ci écurie Fass daal loolu mooy ay waxam ci yëglikaay bi nga xam ne moo di sunu lamb mel ni ki nag am na xibaar boo xam ne day bu bees teq la ñu jëlee ko fan fa nga xam ne nii mooy ci Ibrahima Faye kookoy kan mooy directeur u Lutte TV Ibrahima Faye nag moom daal daa mel ni dafa nangoo ci kaddu Gris 2 may rakk Gris Bordeaux moom la mu bëgg mooy diggante Lac Rose bi ñu doon wax léegi ak Yékini Senior nee na combat boobu daal jàpp na ne bu amee moom combat du ko dàq yëglikaay ba xëy ñëw tey wax nu ko waaye buñ fa jógee itam wala boog dañu fay record record moom que mu xëy dalal kooku itam daa mel ni ab xolam neexul de muy Adama Diatta Adama Diatta nag daal li am moom neuf fois nekk na ko champion d'Afrique waaye daal nee na fi moom championnat d'Afrique nee na jël na croix teg ko ca xalaatu du caa dem nan day participer ndax nag jàpp na ne daal fi mu moom mbir yi na muy doxee neexu ko waaye itam am na loo xam ne daal bourse yoo xam ne waroon na ko am ca mois de août jàpp mois de caata mooy xëy di wax loolu di laaj mbir mooma waa konos waaye keneen koo xam ne ni wax na ci ay mbiram mu ne ka nga xam ne nii mooy Isabel Samb nee moom itam carrière ak jox na ko réew mi waaye itam en retour maanaam daal andilu ko dara leneen leneen loo xam ne jëlee na ko ca gisu ko ca moom ba tey mooy wax nee na ba tey mbirum seen seetam ñëw na wax ca ak loo xam ne ni daal jàpp nañu war nañ leen koy jàppale di leen ko taxaw te nee na dara du dara loo xam ne dimbali leen ko nee na nag di summeeku di défendre sa am réew ci àddina bi te yow boo ci jógee moom daal jàpp na ne mbir yi ndax nii la war a demee moom Adama Diatta daal xëy na tey ci record wax la ko naqari keneen koo xam ne nii moom mu nga ca record di wax ne muy dundee couvre-feu bi ak koor gi mooy Siteu la phénomène de l'Ansar tarkindaa ba Siteu la mu xamle dana fi mu nekk nii daal di julli di ñaan lay def ak di récupérer ak tamit di dem di defi sport loolu mooy wax nga xam ne nii moo di Siteu keneen koo xam ne nii yëglikaay bi ñëw na ci moom muy Fabi Félix nekkoon fi mbarum lit simple mu mag a mag moom nag moo wéradi wéradi goo xam ne gu xaw a metti la wala boo gu metti ndax nag toll na ci mbirum jalis mu mel ni ki nag fi mu nekk nii daal moo tax daal yëglikaay bi di recours war recours boog ñëw ci faa bi fëlir nag fi mu nekk nii daal jalis ya moo ko sonal ñu ngi ñuy xam ne daal lépp lu mu yoroon ci ay billet moo xam ay nag laak lu mu mënoon a doon jaay na ko ngir am pajam te taxul mbir ya maanaam mu am ca mu ca bëgg moo tax nag CNG ba jóg nañu fas yéene jàpp ak kenn koo xam ne ci làmb ji la bokk muy Mohamed Ndaw Tyson ñoo xam ne daal fas nañu ne caa dugal seen loxo jàppale ko ca mbir moom nga xam ne nii mooy la ko dal di feebar waaye leneen loo xam ne dañ ciy ñëw mel ni ki tey rubrique Leewtoo ba nga xam ne moo nekk ca sunu làmb tey nag Babacar Diome lañ fa dalal yëglikaay ba ñëw na dal laaj na ko combat bi la gën a marqué mu ne 1997 diggante Tafa Gueye ak Mohamed Ndaw Tyson kan mooy sa mbër Babacar ne leen liwi coor ma dëkk fa nga xam ne nii mooy ca marloj kon daal li am ba des jàppal faa bi filiir moomu na ko wàllam ji jàppale ji ngir mu jóg yàgg maar ndax nag ah pitax xati mooy mbokkam ndax la ko waral maar ñoo bokk bi yeel waaye li wa wu jara wax mooy ñi nga xam ne ñu ngi bëtt frontière yi maanaam jóge dëkk ak dëkk di das di tas coronavirus bi yàgg maar kenn nit ku am corona wal ko ñaar fukki nit ak juróom Marie Khemesse Ngom Ndiaye ko wax tey kon nga yaakaar ni lii est-ce que bu yàggee ñàkk yar du ci bokk. mbokki Leewtoo ñu ngi di nuyu bu baax a baax Babacar ngeen àndaloon ci revue de l'arène bi Babacar ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay fay biram dina ah, di nuyu internetu Leewtoo TV yëpp fu ñu mën a nekk si àddina bi rek ñu ngi leen di nuyu leen ziar di leen ñaanal jàmm te di ko sàkku si ñoom. kër lu ñuy njëkkee mooy cas coronavirus yi cas communautaire bi dafa mel ni benn nit wala lu mat ñaar fukki nit ak nangam doy na waar. ñaar fukki nit ak juróom moom mu dolli ko ca muy ñaar fukk ak juróom benn ah loolu nag dégg nañ tey eh, ki nga xam ne moo yore wàllum santé mi ci réew mi wala boog ci Dakar di Marie Khemesse Ngom Ndiaye wax ko. yaa ngi dégg ci loo xam ne xool nañ ko ci ay tey toll presque ci juróom-ñetti téeméeri ak nangam yaa ngi dégg mu am ci loo xam ne lu positif la muy nombre bu xaw a bare bare bare waaye nag boo xool la ñu seet bëri na trop macha allah ah ñu ci mën a wax nag mooy encore une fois ñun sénégalais yi ñu war a jéem a def suñu bopp ay bons citoyens si sama bopp laa koy njëkkee yaa ngi def parce que booy digle ca ngaay day fekk nga set yaa ngi dégg maanaam loolu mooy lan ku ci la ngay defi bu la leeree ni lii farata la nga jóg defi ko la dul farata nga bàyyi ko waaye imaginer yow nga ne da nga am problème mu xaalis wala da nga am problème mu mën a fay moto Jakarta 30 000 wala 35 000 wala 40 000 wala nga fay ci ambulance 10 000 francs jóge fenn pour dem fenn est ce que loolu bu kenn gis na ko gëm est ce que dina ko def yow nga nekk yore feebar bi kenn wàllu ko vingt vingt et quelques personnes loolu defe naa du yëfu nit pour man yaa ngi dégg corona bi yaakaar naa ne yàlla dimbali woon nañu ba suñu médecins yi demoon parce que fexewoon woon nañu bi état parce que état bi dama naan ñu ngi naan état état mais état li ko war def na ko parce que état bi tëj frontières yi jotee ak lépp tëj na ko essayant tamit joxe ay ndigal di lu ci ne état daal ci côté lu ci bëree bari xëy na bu du lépp du mën a lépp lu ci bëri taxawee na ko kon daf ci am loo xam ne ñun citoyen ci suñu bopp ñun ñoo ci des yaa ngi dégg parce que déggatoo cas importe parce que amatu fi yaa ngi dégg kon kaa yi yokku nii li ko indi mooy contact yi parce que euh, communautaire yi parce que yow bu la leera ne yow am na lu la dal wala nangam sàngam mais bul bul bul jóge fenn di dem fenn fa nga nekk sax nga toog fa ñu maîtriser ko moo tane mais nga bàyyi ko fa nga jóge ñëw fa nga jëm yóbbuwaat ko fa jox ko ay ñooñu jël ko yóbbu ko feneen yow nga ne bëgg nga réew mi jëm kanam wala bëgg nga lii jeex est que loolu xel na ko yaakaar naa kon ñun ñëpp nañu ubbiwaat suñu ay xel ubbi suñu bopp yi te xam ne feebar bi feebar la boo xam ne day wàlle day jël ay bakkan yaa ngi dégg Macky moomul réew mi déedéet dañ ko koo dénk dénkaan boobu ñu ko ko dénk nag moo tax moom en tant que président mu def couvre-feu bi mais li may bañ ñu naan feebar bi politique la Macky Sall nekk non Sall dafa jiite am réew boo jiite am réew nag di nga jël sa dispositif ëllëg dafay jóge Senghor a fi newoon jóge na fi Abdou Diouf nekk fi jóge fi Abdoulaye jóge fi Macky Sall la fi nekk tey actuellement ñu ko ñaanal yàlla mu réussir li tax ñu dénk ko réew mi ëllëg dafay jóge keneen ne fi mais ngir yàlla ak yonent bi Birame Yagamar Babacar bu ñu Macky Sall gën bëgg réew mi donte moom lañ ko dénk waaw dëgg la moo ko jiite waaye moomu ko moom donc ñun ñëpp ñi ci lañu euh, loo ci mënti dégg euh, yëf yi daal doy na waar ah, ñu ngi ñaanal ñi feebar ñu wér waaye tam ñi nga xam ne dalagu leen yàlla bu leen dal bu mukk ñi ñëw ci sunu lamb sunu lamb daal dafa mel ni tey daal euh, muy Yaxya Jóob Yékini muy Gris Bordeaux muy Bombardier ñoom ñëpp daal ñu gis mooy dañu war a changer daal lii di CNG bi waaye ñoom ñëpp boo xoolee ku ci ne la nga wax ak li sa morom benn la rek moo xam yax yàlla bombardier giri ak booy kayre waaw mel ni nag wax jooju ci mu nekk nii dama naan booy na ay nopp ndax parce que saa ñu xëyee ñu dégg ci ay wax alin saa na dem na dem na dem ah li am solo nag mooy euh, moom mi nga xam ne moom la ñu dénk ak ka ko dénk actuellement pour man ñoom ñooy seetlu yaa ngi dégg ba xam tey ñi ñu jiite fu ñu toll ci ñoom ci wàllum cofeel ak ñi ñu jiite est-ce que nañ ñu jiite leen bu ñu ko xool rek pour man lu ñuy def parce que ministre bi kilifa la Alioune kilifa la mbër yi di wax tamit ay kilifa lañu kon defe naa nag mbir ma comme yegg na foofu moom nañu xool li nga xam ne moo gën ci làmb ji man nag la ma waxoon démb laay waxaat tey rek yaa ngi dégg euh, changement bi du ma ne du am du ma ne na am mais li ci am solo mooy ku mu mën a doon kii dem na dem ngir njëriñal làmb buy toog na toog ngir njëriñal làmb kii ñëw itam na ñëw ngir njëriñal làmb man daal loolu mooy samay wax loolu am na solo ñu ñëw ci euh, le benjamin des promoteurs euh, di jamaïcain dafa ñëw ci sunu lam waxtu wax ci bu bu yaatu sax. waaw wax waxtaan bu yaatoo yaatu moom li ko naqari tey wala parce que dafa yooxu comme ni ñu ko waxee ah la def yaa ngi dégg wax na li newoon ci xolom yëpp parce que génne na ko waaw moom nag li ci gën a li ñu ci gën a jàpp mooy. Euh, maanaam jàpp na ne tey lamb waratuñu nangu ministre bi di leen di leen falal maanaam di euh, dindi ci pouvoir am namee kuy jiite lamb ji moom daa jàpp ne a ne daa jàpp ne kay mbir yi na nekkoon mbirum kañ campagne donte fédération amul biram bu dee yaa bëgg a jiite wala baabakat nga indi programme wane ne nii laa ko bëgg a doxale waa lamb toog ñoom ña nga xam ñoom ñoo gérer lamb ñu mën a ànd ci loola yaa ngi dégg xëy na kon état ñëw accompagner la loolu nag gis-gisam la nit ku ne am nga droit la nga bokk ndax ci làmb la bokk produit làmb la la mu mel ni yemul foofu laaj na sax affaire xaalis bi dugg na fii génn fii ñoom seen am na li ñu ci jël waaye am na la des léegi la des anam defe naa su ma jumul 300 millions la su ma jumul 14 moo ci génn mu leen dina laaj nag 200 et quelques millions 286 millions yi wax loolu nag ñoom ña ko yore ñoom kon comme laaj nga leen ko nañ ko ci jéemandil tontu yow ñoom ñu yore xaalis bu wax ñu koy jaajëfal moom jamee ki waaye yëglikaay bi de yemul foofu ñëw nañ ci ñun ak Sitor Ndour ba léegi ci postam la waaw Sitor nañ bañ ko dàqee ak léegi ci ñaata jours lay toll cinquante jours bañ ko rajee ak léegi waaw mu ngi loo xam ne itam defe naa ne bokk na ci li indi gën a indi ci xar mi karaw li gën a yokk xar mi karaw ko arbitre yooyu parce que bi mu amee rek daa mel ni sa séenéer dafa gën a tàng muy lu doy doy waar loolu am na solo ñuy jël euh, ñeenti mbër rangal leen kii di rëg-rëg bokk na ci Garga Mbossé ak ñeneen ak ñeneen nee na ñii daal moom ñeenti nit lañu waaye benn combat ñeenti nit benn combat rëg-rëg Sa Thiès Yékini Junior Garga Mbossé waaw ñoom ñeent ñooñu nag boo xoolee li tax ñu ne bi ñeenti nit benn combat maanaam da ngay dégg tey ñu ne la diggante Yékini Junior ak rëg-rëg wala diggante Sa Thiès ak rëg-rëg wala diggante Garga Mbossé ak Sa Thiès loolu diggante Sa Thiès Garga Mbossé ak si ñoom moo tax yëgle kay ni ñeenti mbër benn combat waaye li am ba solo nag mooy ñaari combat mën na faa génn ñaari combat xaj na fa ndax Sa ak ki nga xam ne nii moom moo di euh, Yékini Senior combat la Sa ak nga xam mooy Garga Mbossé combat la Sa Thiès rëg-rëg noonu Yékini ñor rëg-rëg tamit noonu même Garga. est-ce gisoon ne sax tournoi la déjà. waa mën nañu ko def tournoi kay waaw mën na nekk lu neex ngay am. ci loolu la ñuy rek dem ci record yi kay wax ak ñun ci Adama Diatta Adama daal moom wax na moom lu bëri bëri moom tam kaas na. waaw mooy daa am lu ko naqari lool parce que sa li ko ko yóbbu ne na entre mois de août ba mois de décembre ay bourses yi waroon nañu ko jox joxuñu ko ko. yaa dégg moom nag jàpp na ne yaa ngi défendre sa réew lu ne nga di ko def pour sa réew te en retour du la jural dara. mu mettit lu ko lool te nee na ku mel ni du moom kese ndax nee na Isabelle Samb lu mel noonu dal na ko loolu mu wax nag ci record bu dee lu am la dama naan kon ñi jiite sportu réew mi waaye ñi nga xam ne ñoo encadré wàllum làmb nañu xalaat mbir a baax ndax nit ki di compétir di dem di défendre Sénégal ba pare te bu dellu see du ko jural dara mag naan ndox mu tàng suukar saa tax yaa ngi dégg loolu moom nañ ci bàyyi xel bu baax ndax egg na ba ci ne mbër yi nga xam ne ñooy lutteurs yi nekk ci licence bi sax pour ñu ñëw defi olympique bi dafay jafe parce que lañ lam leen di jural en retour du doon dara moo tax du ñu koy daw loolu nag yaakaar na war a ne parce que Sénégal tey luy sport ci àddina bi fu ñu koy defee rek war nañ ci mën a am représentant te bu ñu ko fa amee itam état bi ak ñu yor sport bi war nañu ne mën a encadrer teg leen ci ay bonnes conditions yu nga xam ne nii ëllëg dañuy sawaraata dem compétir yi ndax foo deful xaalis pour nga jëlee fa dara dina jafe rawatina sport sport moom da ngay investir pour nga mën a am un retour la nga soxla. waaw mu mel ni mbëru olympique yi sax dañoo bëriwut noonu Sénégal. ah non parce que loolu li mu wax ni bu dee lu am la bu dee noonu la ah yomb. parce que tamit mënoo di def loolu ba pare te après yow du la indi lu xam ne lu kii la balaa caag nag sama waay te ku ne fi mu nekk nii mm. borom kër nga borom kër laa moom isa aadama borom kër la keneen noonu waaw ñu koy nuyu bu baax di nuyu Elisabeth Samb moom itam euh, waaye itam dañu ñëw ci Babacar Diom mi toog ak tey tey sunu lam waxtaan ak moom ci lu yaatu rawatina nag ba laaj ko sax kan mooy mbërëm waaw waaw rubrique Leewtoo bu ñuy def ma ci nuyu Assane Waalo muy rubrique xam ne bu neex la parce que li mu lay laaj laaj yu solo la waaw combat bi ma gën a marqué mooy Tapha Gueye Tyson waaw marqué dama 97 hmm. waaw boobu combat du ma ko boobu maa ngi nag xale bu ndaw mooy mboot waaw ñu bi mbootu jalal ba yaa dégg xam nga euh, nit ku ne da ngay wax te yàlla tax tafaa gi dama ko mës sa bëgg ndax façon bi muy bëree boobu maa ngi nekk xale vraiment keroog fi ko Tyson daane euh, waaw loolu du ma ko fàtte daal. xam nga da ngeen niru boo leen di waaw waaw ak <laughs> sànq yu arke yeeg yooyu <laughs> ma koy nuyu Père Tafa mais tamit di nuyu Mohamed Ndaw Tyson moom dem sama waay. yaa ngi dégg mel na ni loolu euh, temps xale vraiment Tafa gi nekkoon na mbir mi xam nga bu marqué époque am la te combat boobu meloon na ni 2010 Modou Lo Modou Lo Balla Gaye ba lool lool loolu moo dikkaatoon boo delloo 97 ci ñi fekkee combat boobu dund ko noonu la demee parce que boobu génération bul faale lu bees la tey seen ñëw imposé loo xam ne kenn xalaatu ko ci làmb Tapha Gueye itam nekk mburum Ndakaaru mu nekkoon ko boo xam ne bu intense la woon Tapha Gueye Tyson daan ko ci jël bu leer a leer mbër bi ñu ma laaj tamit sa mbër liy coor la parce que man dama di doomu séeréer ba pare nekk co ku bëgg cosaan yaa ngi dégg te liy coor nekk mbëru séeréer bi nga xam ne nii yaakaar naa ne xam nga bu baax li ma lay wax <laughs> donc mbal ka mbalkama mbalkama <laughs> ak ci làmb loolu beneen affaire la te man yooyu daf may intéressé trop waaw loolu moo tax ba nga xam ne daal rubrique bi bëri nañu ci wax ñuy nuyu waa sunu làmb yëpp rawatina seen ay kilifa lan la gën a neex ci liy coor bëre bi la wala daw bi mu doon daw wala aar bi muy avant bëre bi sax aar bi son dama bëgg aar lu aar surtout làmb làmb da ngay aar làmb aar la maanaam daw bi mm-hmm. ak des fois ñu oo ko mu daw yóbbu butéel bi ci waykat bi jox ko maye ndab wala wala xadi juuf ko <laughs> loolu rëg-rëg moom moo ko moom di ko def yaa ngi dégg des fois mu toog commencé nii jat way boppam xam nga yooyu yooyu c'est autre chose biram sans compter bëre bi. te bu ñu koy wooyee nag naggeer kàmbal ka mag moom day wooy moom ci boppam di daw di woy. loolu moom may daaneel nag loolu daf may daf ma yëngal ci mbër ñu lay woy ngay woye sa bopp yow gis naa benn xale bu dëkk bitanti bu ñuy wax gànja faama day def lu mel noonu loolu dama ko bëgg mbër mbëru simple day yëngatu. ñu ci nuyu Laye Ndiaye bu baax di président fans club Babacar ñu ngi koy nuyu waaye foofu lañ ne di tàggatoo di nuyu ñi suivre ci Leewtoo TV yëpp waaye dem di nuyu bu baax Ibra Saaru lagu yàlla pangoon waaye itam seena bu xëyaay ñu ngi koy nuyu bu baax a baax xaw moom daa am anniversaire jotagul nag le 4 la waaye moom daal li ko ci neex mooy jël na yëf yëpp teg ko ci loxol biram xaw ma nag nag fu ñuy dem ci euh, anniversaire ci taay day na wa de dañ koy amul la nga la fa sës rek dañ koy defal anniversaire bi ci couvre-feu rek parce que ci lañ toll ñaan yàlla corona bi dem di nuyu ñi nga xam ne ñooy soppe ñoom Laye Ndiaye comme ni nga ko waxee président fan club xam a baax wax di ne fa la dëkk mais tamit waa Diouf la sant di jaale koo xam ne sama nijaay la parce que li tax ma ne sama nijaay la ki gaañu ki ko jur ak ki jur la ñu koy wax Kolwaan Thiaw dëkk ca Ndondol seen sump maa ngi koy jaale waa Ndondol yëpp di ko jaale ay doom di ko jaale tamit sama nijaay yëpp di ko jaale le maire de la commune de Ndondol maître président comité Sénégal des droits de mais maître Pape tamit maa ngi koy jaale ki nga xam ne nii tey mooy soxnawu docteur Massamba Guèye bu TFM parce que dafa décédé te man après laa xam ne foofu la doon liggéey ci moom ci comité bi la nekk comité sénégalais des droits de l'homme ñu koy ñaanal yàlla yërëm ko te jéggal ko ak ku nga xam ne tamit mën nañ parce que bokk milieu bi ah muy keps euh, bu nekk TFM mooy juróom tamit dafa génn àddina di ñaanal yàlla yërëm ko te jéggal ko di ñaanal ñëpp mais di wax mention spéciale Saliou Khoule maa ngi koy nuyu borom Sen TV borom borom Zik FM le meilleur animateur